asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di jaar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen euh, tey nag dikkaat nañu ginnaaw bésu mawlid nabi bi nga xam ne ci lañ nekkoon fan yi doon ko màggal ah euh, bërki démb ci euh, li nga xam ne moom moo doon bésu altine bi ah, kon tey lañ dikkaat àllarba ah, mu tombe ak le 20 décembre deux mille vingt la le vingt le vingt octobre du mois deux mille vingt et la may def mooy bàyyi leen ngeen dem déglu te seetaan yëglikaay li ñu indi ñu dikkaat ak yéen si plateau bi. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. mercredi 20 octobre mille 2021 dañ ñëw ak njëglikaay suñu lamb lañ koy dooreeti yëglekaay bi nag tey xëtamu njëkk moom la ca xëy fes moom moo di combat combat Ama Baldé ak Modou Lo ba nga xam ne nag boo bëggee dégg dëgg daal le 13 mars mille 2021 la nu ko jàpp wala boog le 13 mars 2022 yëglekaay bi nag daal boo bëggee dëgg-dëgg combat ba ca lañ ko fas yéenee amal waaye nag yëglikaay ba xëy na daal dikkal ñu cay ci boppu combat ne boo bëggee dégg dégg daal la ca nar a neex mooy ay open press yoo xam ne daal dana bëri lool lool lool yoo xam ne daal yu tàng jër yoo xam ne yu méttee méttee la yu toll ci juróom daal maanaam yëglekaay ba nee na promoteur ba nar na ko ca moom lig Nicolas sunu làmb xëy tey diñu wax lu mel ni ki noonu moom sunu làmb ba tey yemut ci lu mel ni ki noon xëy na diñu wax ci mbirum lig Nicolas wala boog date ba nga xam ne moo doon la cinq décembre ba nga xam ne daal ca la waroon tëgg ka nga xam ne moo di Modou ak Ama Baldé te léegi ñu yóbbu ko ba weeru mars yëglikaay ba nag di ñu xamal ne daal ci benn collaboration boo xam ne daal am na ci diggante jam production ba jamay kee jiite ak Luc Nicolaï Enco ba Luc Nicolaï jiite daal daa mel ni seen collaboration booba nag moo tax nag léegi nag le 25 décembre booba daal gars ya fas yéene indi indi ay surprise yoo xam ne daal yu doy doy waar la fa nga xam ne moo di ci arène nationale bokk na ci bàyyi ma ñoon xoyantaan ak yeneen mbir yoo xam ne daal liggéey la boo xam ne jam production moo ko war a seq ak waa Luc Nicolaï Enco yëglikaay bi moo xëy ñëw dina wax lu mel ni ki noonu kenn koo xam ne nii wala mbër moo xam ne nii ko Nicolas moo ko tëgg muy Ama de yëglikaay ba nag mu ngi xam ne daal nanu Ama daal bu bëggee dégg-dégg ca wàllum MMA ba daal ah daa mel ni Ama Pikine Pikine waa ba daal daa mel ni daal signé na ca la nga xam ne nii moom moo di ab entraînement ak duggam daal yëglikaay ba xëy na tey wan ñu ko mu mel ni ki nag maanaam semaine factory daal daa mel ni ñoom ñoo décroché ka nga xam ne moom moo di Ama Balde yëglikaay ba xëy ñëw dinu wax lu mel ni ki kenn koo xam ne ni doomi Pikine la di Mbay Jàllo mu nga xëy di wax ci combat boo xam ne dox na ci diggante général Malika bu Malika ak Fils de Balla Mbay Jàllo nag technicien ba ba nga xam ne daal ab entraîneur la mu nga xëy di jàngat combat nee daal bu bëggee dégg-dëgg bu fekkente ne ñoom ñaar xeex daa am dana Fils de Balla na loolu koy arrangé te itam nag ci loolu la war a opté taxaw ca ba mu mat sët général Malika tamit nee na moom boo bëggee dëgg dëgg daal lu jëm ci wàllum daal seer sa ji nga xam ne moo di fils de balle jëli ko ñu bëre na na loolu moo koy arrangé kenn koo xam ne nii moom ki ko arrangé xëy na tey di ko wax muy yaaram numéro deux ma nekk fa nga xam ne ni moom moo di ca Rock Énergie que mu xëy daal di wax ne moo ko arrangé ba mu defee ko sampal ko ndën mooy Abdou Diouf mooy kri wàllu daal la yaaram jàpp ne ñoom ñaar seen combat manta jaas faw daal bëre am fa loolu daal mooy ay waxam ko nga xam ne nag moom la bokkal écrit bu ñu demee record andil ñonu ko muy Modou Lo mel ni ki nag moom Modou daal soo bëggee dégg-dëgg combat ma nga xam ne fi mu nekk nii daal ah pusaat nañ ko ba weeru mars daal yëglikaay bi dikkal nañu ci lu mel ni ki noonu ak Modou Lo mbir ya nga xam ne ni war na ko caa mën a fekk na muy garder couronne roi des arènes ba yu mel ni ki noonu mu mel ni ki tey daal loolu moo fi dikkan ci li nga xam ne ni moom moo di yëglikaay yi moo xam sunu làmb la moo xam record la. jërë ngeen kon dégg ngeen yëglikaay yi moo xam sunu làmb la moo xam record la tey dikkaat nañu ak yéen ci maanaam mbirum làmb ji mel ni ki nag balaa ñoo sori. li ñuy def mooy baalu naa àq bu baax baax a baax a baax leen ñaan yàlla defal ñu jàmm li nga xam ne nii moo doon gàmmu gi nga xam ne nii moo doon guddi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu màggale ko fu nekk ci réewum Sénégal moo xam Tivaouane la moo xam Njaasaan la moo xam fa nga xam ne nii moom moo di eh, Njaareem la tuubaa Touba Medina Baye Léona Ceneba maanaam fenn desul ñépp màggal ko képp kuy këru diine rek màggal nga ko kon loolu nga xam ne ni moom lañ doon def yàlla na yàlla def lañ ca ñaan mu nekk ay ngëneel ak xéewal te yàlla wàcce ko ci réew mi barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla mën na ko yàlla def ñaar xalif général yi xalif yi nga xam ne ñoom ñu la yàlla dogal ñu jiita tey këri diine yépp nekk ci nekk fi yàlla leen fi yàlla yàggal yàlla guddal seen fan wéral seen ay cër waaw chaque jour rek ah ñuy ñaan yàlla ñu dinu digal ñuy mën di jëfe seen digal parce que tamit sunu njariñ kese kese moo ci ne kon loolu moo moo taxoon fan yëpp gisu génn parce que tamit nag defe naa ne euh, lu mel ni guddi yonent moom bu ñu koy màggal lépp dañ koy teg jublu ci loolu ba mu jeex noonu noonu la demee bu ma ñëwee nag ak yéen tey ci làmb ji ci àllarba ji gis ngeen sunu làmb xëtam mu njëkk tey Modou Lo Ama Baldé la xëy tey fësal mu mel ni ki nag ak Luc Nicolaï mu tëgg seen combat mu mel ni ah, nekk ni daal gars yi nag dañoo fas yéene ci liggéey bi nag léegi ñu jublu ci liggéey bi jëmale mois de mars bi nga xam ne ci la ñaari mbër yi fas yéene bëri di le 13 mars moo tax ne na ay face à face ay open press yoo xam ne daal yu teg mu mel ni ki nag loolu defe naa ne fi mu nekk ni Sénégal yëpp a ngi koy xaar maanaam gars yi moom dañoo jotuñu soo ci te xaar diggante Modou ak Ama seen face à kañ lay njëkk a doon nu muy amee lu ñuy waxante buñ ci jógee seen open ñaan yàlla rek yàlla na yàlla def xam nga euh, comme nañ ko promoteur bi sumbe wala na mu ko xalaate yàlla na yàlla dimbali ko ba mu yeggalee ko noonu ci sagoom waaye tamit loolu lañu ñaan kull kuy promoteur boo xam ne yaa ngi jubat bés bu nu continuer ba tey ci yëglikaay bi nga xam ne moom moo di sunu làmb ba tey mu nuy wax ci Luc Nicolaï Enco ak jam production mu war xëy ñu woon euh, xoyantan ak bàyyi ma jom mel nag yëglikaay bi la mu xëy wax dafa jàpp ne jamaïcain Luc Nicolaï Nkodo ko séddee datu le vingt cinq décembre bi waaye daa mel ni ki nag jam moom ci boppam bi mu gisee loolu tey xëy na indi ci ay leeral ndax man woon na ma téléphone en personne ne ma du séddee maanaam li fa am mooy ñoom dañoo am collaboration bu dox ci diggante Luc Nicolaï Nkodo ak jam production. ñaari serviteurs yi ñoom ñoo collaboré fas yéene liggéey liggéey bu am solo ci saison ren bi nee na nag moo tax le 25 décembre moom ku yebu xaar ci ay surprise jamaykee moo ko wax yàlla nañ ko fekkete tal ko loolu soreetul mu mel ni kon loolu tamit lu jar a bàyyi xel la ba tey bu ñu continuer Ama Baldé mi war a bëre le 13 moo moom muuruloo mel ni nag Ama daa mel ni signalé ca wàllum MMA ba nag ak euh, kër gu ñuy wax la nga xam ne ni moom moo di manaan management ah factory daal daa mel ñoom ñoo décroché Ama Baldé ci wàllum MMA yëglikaay bi moo xëy ñëw wax na lu mel ni ki noonu loolu nag dafay mel ni kon ah su bëggee léegi mbër yi daal ñu ngi gën a yokkaat seen expérience mais MMA bi tamit ñu ngi koy gën a ñu ngi gën a dox jëm ci MMA bi loolu nag xëy na ah yaakaar naa ne kon dama naan Bombardier am na mérite moom mi nga xam ne moom la ñu njëkk a gis ci mbër muy takk ngeem fii ci li xam ñun mu commencé di jongante MMA ba tey defe naa ne ñu gis mbër yu bare bare nekk ci ñoom Siteu ñoom Reug Reug ak yeneen i mbër tey bu ñu ci jëgaatee champion bu toll ni Ama Baldé ah lu ama am solo la waaw euh, ñu ngi ñu ngi leen ci ñaan ñoom mbër yi ci dugg yépp bu ñuy jongante daal te jongante wuñu seen biir bu fekkente ne ay étranger la ñuy jonganteel yal leen si yàlla may ndam loolu lañ leen di ñaanal parce que loolu mooy li nga xam ne nii moom moo am beneen doomu Pikine boo xam ne dañu ñëw si moom muy Mbaye Diallo mu ñëw tey di jàngat benn combat boo xam ne nii moo war a dox ci diggante fils de Balla ak général Malika dimanche ji ñu jëm Assane Ndiaye tëggu ko moom Bawol production ah, mu mel ni ki nag moom Mbaye Diallo gis mooy kii di Fils de Balla nee na moom li ko arrangé ci combat mooy mu opté ci côté xeex bi général Malika tamit nen li ko arrangé mooy mu jéem a cherche ji de Balla pour ci li ko xam naa pour bëri bi waaw loolu moom lamb saa amee ku ci ne dina am lu lay gën a arrangé waaye nag des ñu ne mbër mi xeex ko arrangé mu ñëw indi bëre ba daan ci bëri des fois ñu ne mbër mi bëree ko arrangé mu ñëw indi bëre mu ñëw indi xeex daan ci parce que ñoom ñaar ñëpp dama na bëre lool xale bu mën a bëre la tax mën a bëre moo tax tey yàggul si lamb mais gis na niveau bi mu nekk général Malika tamit defe naa ndax mën na bëre kenn dootu ko werante ndax defe naa mbappat kenn mënu cee nekk di ci gagné ay millions ak yenn yi ba pare ñu naan mën ngaa bëri wala mënoo bëri côté xeex tamit lu mu man la waaw loolu moom am na kon defe naa ne combat la boo xam ne dimanche incha allah rabi yàlla nañu ko fekk te tal ko nar naa neex trop trop trop waaw ñoom ñaari mbir yi mel ni ki sax tey ji seen open press yi defe naa ne tey am na ku ciy def open press yi ñoom ñaar kenn ki war a def suba ba tey bu ñu continuer fa nga xam ne ni moom moo di ca Europe Energy am na ko fa feeñ tey mu yaaram de ah di partenaire u Modou Lo ñu bokk écrit moom nag Abdou Diouf daal la sampal doon bu waalo ne daal diggante ak Abdou Diouf moom moom yaaram de daal a ngi lay téeg su dee pare na moom am na solo waaye daal loo ci mën a dégg daal mu wax na la mu bëgg làmb nag noonu la dëkkante da cee bokk ba tey bu ñu continuer ci record record ñëw na di ñu xamal tamit ci mbirum Modou Lo ak combat bi nga xam ne nii daal ah. waaw ba tey pousse baak yooyu ak ndax moo du garde couronne baak yu mel ni ki loo ci mën a dégg xam naa ne combat bi moom ah incha allah rabbi ñun li ñuy ñaan rek mooy fekkee ko te tal ko te xam na ne incha allah rabbi buñ ko fekkee te tal ko ah bis bu neex dina am. di ñaan promoteur bi Luc Nicolaï parce que tamit combat bi yàgg na lu combat boo xam ne mën nañ ne diiri na ñaari at ah, wax dëgg yàlla metti na ci promoteur bi waaye metti na ci mbër yi tamit metti na sax ci ñi nga xam ne nii ñoom ñoo bëgg a seetaan muy staffu mbër yi parce que saa yoo préparé ba kii après mu am lu ko yaaxaat mais bon loolu mooy àddina nit ki li ngay bëggee ak li buur bi di dogal des fois du doon benn ndax ab jaam moom sabab lu la man waaye dogal yi nag suñu bi dong moo ko yor yàlla na yàlla def nag yàlla na nu yàlla dimbali nag bu lépp lu mu dogal rek mu neex ñu waaw tey loolu moo fi déggoon ci yëglekaay yi di balu ñëpp ak di ñaanal ñëpp jàmm di wax ka ni bon gàmmu comme ni mu ko waxoon rek moom laa ubbi woon yàlla yàlla def daal lépp li nga xam ne ñaan nañ ci yàlla na ko yàlla nangu di massaw tamit ñi nga xam ne suñu ay collègue la ñu bokk fii kër gi te ñu doon dem di gàmmu ji am ay quelques jafe-jafe ci yoon wi waaw mm, hélas ak ñi mu àndaloon ñëpp maa ngi leen di massaw loolu di ñaan yàlla que ni loolu yàlla na fi yem parce que loolu mooy àddina waaw nit moom yooyu mënul ñàkk si parce que nit des fois mu am gàllankoor du ko nettali waaye ku am gàllankoor ba nettali ko rek santal sa borom waaw defe naa ne loolu mooy li am solo aussitôt tamit euh, euh, ku mel ni euh, mbay sapar sapar parce que depuis boobu ba tey yaakaar naa ne jotuma ko sax tudd te maa ngi ciy jégalu maa ngi koy jaale waa Sénégal di ko jaale waa Touba Mbacke di ko jaale ku mel ni aw jóbu Balla Gaye ndax ñoom ñaar ñoo bokkoon benn koñ benn mbay demee ndindi ci lu ma nangoo si làmmiñam mu nekkoon nit ku baax nit ku daan bëggal nit ñi te daawu ci daawu ko booleeg maanaam ñax ki teggin wax ju neex joo xam da nga koy déglu di bëgg di ko jàll ñëpp man yàlla dafa dogal bi ma ko xamee ci net bi mais kër Balla Gaye numéro 2 laa ko mën ndax ku ne xam na ne diggante mag Balla ni meloon lu Balla xel la ko fay fekk safar yàqu lépp ba bëri ki démb bu yàgguloo njaay ci daju papaay Balla Gaye gis dégg naa ko fa micro yàlla na ko yàlla jéggal di ko jàll tamit Bombardier ndax ndeysaan dafa jooy ba di yi metti te loolu lépp di ko ndi mooy sax di ko kon mbay ñépp la fi nekkaloon kon ñu ngi koy jàll waa Sénégal lépp di wax ne àddinaa ngi noonu yàlla na yàlla xaare ko aljana xaare aljana bépp doomu aadama barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Balde di leen remercier yow mi nekkoon si cadrage bi ak montage bi di ñaan jàmm Sénégal di ko ñaan képp koo xam ne yaa ngi ñuy suivre di ko ñaan si